ñun dama ne la démb lañ waxoon ci Sonko lañ wax tey changé wuñ ci mais bu ñu waxoon changé ah. ak sur le sur, sur la dissolution de Pastef aussi jàpp ngeen. d'accord ñu ci ànduñ ci. on l'a condamné te boo leen jëloon nguur gi di ngeen rétablir. le parti boobu avant boobu on demande à ce que Pastef soit waaw waaw buñ ko deful buñ ko deful ba booba. lépp lu fi injustice dëkk bi. Ah. ñu jàpp ko bu ñu ñëwee nañ ko réparé. ça dépend. lépp lu fi injustice ñu jàpp ne injustice bu ñu ñëwee dinañ ko moo tax ma ne le mandat en bi ñëw dafa nekk un mandat de réforme. mais quand le pouvoir quand le ministère de l'intérieur euh, fait le lien entre euh, les actes de violence ak Pastef pour justifier la dissolution de de, de Pastef euh, vous confortez sa sa sa sa thèse ou bien il y chose qui vous gêne. xam nga man boo seetloo ministre de l'intérieur bi ñu ko falee je suis le premier à le récuser j'ai été le premier à parce que du dara mais fu mu jaar la mënul nekk crédit tëj Karim du ñu ni ko agent judiciaire de l'État mu tëj Khalifa Sall ñu indi ko ministre de l'intérieur man dama gëmoon ne moom ak Madior Fall Ismaïla Madior Fall c'est les deux piliers du troisième mandat ñoo yoon projet boobu. Macky Sall démentir na leen ñoom ñoo yoroon projet boobu ndax Madior bu dem ba naan en principe da ba ba changer version loolu c'est la limite ridicule. moo tax man ma ne la tous les actes que le ministère de l'Intérieur pose man dama koy remettre en cause politiquement j'ai toujours remis en cause des actes du ministère de l'Intérieur li ñu bëgg a def Pastef dissoudre parti bi danaa la amul sens ànduñ ci ñun pour ñun c'est des motifs fallacieux mais mu ne ñun du ñu wax lu neex nit wala ñu naan dañuy xool tey lii engagé non non non ñun utuñu électorat kenn ñun sénégalais yi seen électorat on a un projet qu'on présentera aux Sénégalais